الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينادي في أليائه وكبريائه وعظمته ويقول أنا الله أنا الله لا إله إلا أنا من أقر لي في الوحدانية أدخلته حسني ومن أدخلته حسني أمن من عذابي أيها الأحباب ما قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرد ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله ولا جرت صفوف الجهاد ولا أرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم الأمل بلا إله إلا الله تالله إنها كلمة الحق ودعوة الحق وأنها براعة من الشرك ونجاة هذا الأمر ولأجل هذا خلق الله الخلق كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال ابن أيينة رحمه الله ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كماء البارد لأهل الدنيا ولأجلها أعدت دار الثواب ودار الإقاب ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد فمن قالها أسم ماله ودمه ومن عباها فماله ودمه حلال وبها كلم الله موسى كفاها وهي أحسن الحسنات كما في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن صامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال الحمد لله اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم وهي أحسن الحسنات وهي تمه الذنوب والخطايا mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi julli ak ñaanal ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi woote ci màggaayam ak dayoom ak réyaayam moom yàlla tabaraka wa taala mu ne man yàlla man maay yàlla képp ku saxal loolu ne man maay yàlla képp ku ko dëggal mu ne ma dugal la ci sama place bu am sécurité mu ne képp koo xam ne dugal naa ko ci place yooyu nga xam ne moo am sécurité mu ne kooku dina am kóolute dana mucc ci sama mbugal mbokk yi asamaan ak suuf nañu yëg ne yàlla taxawalu ko lu dul ndax benn baat rek ñu dëggal baat bi mooy laa ilaha illa allah moo tax yàlla bind asamaan moom moo tax yàlla bind suuf mbokk yi jaamu yàlla du mën a wér du mën a sell farata du mën a nekk farata sunna du mën a wér kenn ci ñun du mën a rëcc jóge àddina dem àllaaxira kenn ci ñun du mën a raw lu dul mu saxal mu dëggal laa ilaha illa allah mbokk yi baat boobu moo tax yàlla yónni yonent yi ne leen jël leen ay jaasi dagg leen bopp képp ku ko bañ a wax giñ naa ci màggaayu yàlla baatub dëgg bi mooy laa ilaha illa allah mooy woote dëgg baat boobu mooy baat bi nga xam ne soo ko waxee yow day mucc nga ci bokkaale yow day yaay ki rëcc yowmal qiyaam yaay ki mucc sori safara daal di dugg aljanna mbokk yi baat bi moom mooy woote dëgg mooy baat bi tàqale diggante tawxiid ak bokkaale ku ko wax dëggal baat bi sellal ko wéral ko yow day bokk nga ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo sori safara daal di dugg aljanna mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp li ñuy ànd seetlu tey te dëggal ko mooy baat bi muy baatu laa ilaha illa allah dem nañu ba mënatuñ koo wax lenn ci ñun sànku nañu ba mënatuñoo wax baat bi lenn ci ñun danañ wax baat bi waaye fan lañ koy waxee ci dansin yi ci feccukaay yi ci naanukaay yi sàngara yi ci woyukaay yi lenn ci ñun danañ ko wax waaye fan lañ koy waxee ca làmb ja lenn ci ñun danañ ko wax waaye fan lañ koy waxee ca simb ba lenn ci ñun danañ ko wax waaye fan lañ koy waxee nan lañ koy waxee nu mu leen neexee baatu laa ilaha illallah dem nañ tey ba buñ koy wax day ànd ay sabar day ànd ak ay ndënd day ànd ak ay xiin day ànd ak day ànd ak waaye baat bi dem nañ ba mënatuñ ko wax suñuy wax lu ñuy wax laa ilaha illallah di nga gis boroom kër gu yor kurus gu rëy jag jublu penku ginnaaw ba mu jàppee toog ci sijaada ju set ju sell di wax laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah soo ko doon wax fii ba suba doom dara soo doon fanaan di ko wax guddi ak bëccëg nga dund ci nga dee ci ci laa ilaaha illallaah mooy waxoo dara il fallait que baat bi nga wax ko ni ko yàlla bëggee bul ci dagg xarf bul ci wàññi dara bul soppi masque laa ilaha illa allah muy doog a sell soo ci soppee benn xarf fi ak juróom fukki at téeméeri at da ngay sonn waaye doo am dara borom bi tabaraka wa taala nee na baat bi daf maa yitteel ba ma yónni ay yonent pour yonent yi woote ci baat boobu wa ma arsalna min rasulin illa nuuhi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun yàlla nee na dama yónni ay yonent ay ndaw yoo xam ne maa leen tànn forme leen jàngal leen baat bi ba ñu xam ko mani dem leen ngeen woo jaamu yàlla yi ci baat bi ñu xam ne man lañ war a jaamu man yàlla tabaraka wa taala borom bi nee na yow mu ci loolu de yunazzilu almalaika birruhi min amri ala man yashaa'u min ibadi limaza ya rab ananziru annahu la ilaha illa annahu la ilaha illa ana fattaqun borom bi ne maa wàcce malaaka yi ma booleeg ñoom seen kilifa ki ci gën a màgg muy jibril lu tax malaaka yi dong doyoon na waaye yàlla jël jibril boole ci biir lu tax yow yàlla nga def loolu mu ne ma yónni ko ci yonent yi nga xam ne maa leen di yónni pour ñu xamal jaami yàlla yi ne laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñuy jaamu ci suuf sii ci keppaaru asamaan jaamu gi di ñu jural njëriñ ñàkk koo ñàkk koo jaamu di ñu julal lor lu dul mu ne ku dul man yàlla tabaraka wa taala mu ne nañ ma moyit sëriñ bu tudd ibnu uyayna mu ne yal na ko yàlla yërëm mu ne maa anama allahu ala abdin min al ibaadi nicma afdal min an arrafahu la ilaha illa allah nee na yàlla desa tabaraka wa taala desalatul benn jaam dara jaam bu yàlla xamal ba nga mun a tudd baat boobu ba nga mun koo sellal nga mun a teg baat bi palaasam yow yàlla desalatu la dara yàlla desalatul xéewal jaam boo xam ne yàlla xamal na ko yàlla jàngal na ko yàlla baaxe na ko suy wax baat bi du ci damm benn lettre day wax laa ilaha illa allah kooku yàlla desalatu ko dara mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala nañu yëg ne wa anna laa ilaha illa allah li ahlil janna maul kama il barid laa ilaha illallah pour ñu xam importance am ci waa àdduna mu ngi mel ne ki ci gën a mar naan mun na am ku woor ñetti fan yu mu tegale wala mu toog ay fan yoo xam ne lekkul naanul mar boobu muy mar ba pare ñu indil ko ndox mu sedd noonu ndox moomu mel ci moom noonu la laa ilaha illallah mel ci jaamu yàlla yi ëllëg yowmal qiyaamati mbokk yi laa ilaha illa allah moo tax yàlla bind aljanna moo tax yàlla tàggat ko defar ko pour ñépp ñi dëggal baat bi ñépp ñi ko saxal ëllëg borom bi tabaraka wa taala dina leen dugal ci kër googu waaye moo tax yàlla defar safara de képp ku ko bañ a wax ba nga dee dajeeg yàlla tabaraka wa taala sa kër moom mooy safara faman qaalaha asama maaluhu wa damuhu wa man abaaha fa maaluhu wa damuhu halal képp ku bañ a wax laa ilaha illa allah sa deret ak sa alal dagan na ci jullit ñi ñu rey la jël ko képp ku wax baat boobu deretam ak alalam araam na ci jullit ñi ñu laal ko wa biha kallama allahu muusa kifaahan baat boobu keroog ba yàlla baaxee muusa mu jàkkaarloog buur yàlla tabaraka wa taala ci baat bi la yàlla waxee moom ca tuuru siina keroog ba mu koy wax yaa muusa innaka bil waadi al muqaddasi tuwa da ko ne innani ana allah laa ilaha illa ana muusa simmi say dal muusa simmi mu ne ko loo yot loo yor sa loxo mu ne ko yet loo koy doyee na dama koy sàmme waaye am na ay yeneen yu ma ciy faja sama aaju yàlla ne ko li ko yàlla njëkk a jàngal keroog foofu ci tiiru siina moom dong ak borom bi tabaraka wa taala muy wa yàlla di wax Moussa di dégg amul interprète amul keneen yàlla ne ko man maay yàlla maa ngi la yëgal ne amul kenn ku dul man amul benn buur bu dul man mais gis nga tey caaxaankat yi ñi nar a dem safara ëllëg yowmal qiyaama nar a yóbbaale ay jaami yàlla ci baat bii la ñuy réeralaate doomu aadama yi tey naan la loo gis yàlla la maay yàlla ndax yàlla nee na laa ilaaha illa dara amul lu dul moom kon loo gis yàlla la kon yow yàlla nga tabax bi yàlla la basan yi yàlla la sijaade yi yàlla la rajo bi yàlla la ñu nga ni lu tax ñu ne yàlla moo ne laa ilaaha illa la dara amul lu dul moom yàlla waxul dara amul lu dul moom laa ilaaha illa tekkiwul dara amul lu dul yàlla déedéet tekkiwul loolu baat bi dafa am lu muy tekki lan lay tekki mooy laa ilaha amul benn yàlla la wax dafa leer kalimatu ilaha ismun tur la dafa ne amul benn yàlla bu dul man yàlla la wax waxul dara bu doon day wax dara dinaan laa shay'a mais laa ilaha la wax al ilahu wallah kon ñi koy firi firi boobu la ñuy réerale doomu aadama yi ñaata tey ci ay xale yu góor ci ay ndaw yooyu gis ñu yor kurus yoo xam ne kurus yi mu ngi buubu ci suuf loolu la ñuy loolu la ñu gëm loolu la ñuy wax waaye dañ leen a nax firiluñ leen baat bi na ko Seydina Muhammad firile woon sahaaba yi lu tax keroog ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon firil sahaaba yi lan la wax dafa ne leen irfa'u aydikum yëkkati leen seeni loxo wa qulu laa ilaha illa allah sahaaba yi daal di yëkkati seen loxo daal di wax baat bi ñoom ñoo ko nettali ñu ne fa rafaana aydina saa waxtu yàlla waxtu la ñu yëkkati seen loxo ci kaw asamaan ñoom ñëpp di wax laa ilaha illa allah fa wadaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadah yonent bi teg ay loxoom wa qaala alhamdulillah allahumma ba'athani bi hadhihi alkalima wa amartani biha wa wa'adtani aljanna wa innaka la tukhlifu almi'ad yow yàlla yaa ma yónni ci baat bi nga ma yónnee yaa ma dig ci baat bi nga ma dig yow yàlla yaa ma sant ci baat bi nga ma sant mu ne sahaaba yi kontaan leen abshiru fa inna allaha qad ghafara lakum kontaan leen yàlla baal na leen wa hiya ahsanul xasanaat baat bi moo gën a baax ci lépp lu baax wa hiya tamxu zunub wal xataaya baat bi dafay fomp ay bakkaar ak ay ñaawteef yàlla na yàlla fompal suñuy bakkaar ak suñuy ñaawteef اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون آمنا بالله ربًا وكفرنا بكل ما يعبدون من دون الله وفي سنن ابن ماجه عن ام هاني عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا اله الا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل ورعى بعض السلف بعد موته في المنام فقال ما أبقر لا إله إلا الله شيئا وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب وفي مسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال قولوا لا إله إلا الله وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن فلو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن نوحا عليه السلام قال لأبن عند موت آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله بكفة لرجحت بهن ولو أن السماوات السبع والأرضين كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله بقي جلنا سنن ابن ماجه ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne baatu laa ilaha illallah du bàyyi benn bàkkaar fu mu fekk bàkkaar su ko borom waxee ni mu ko war a waxee mu dëggal ko sellal ko baat bi daal di dindi bàkkaar yi baat boobu amul lenn lu koy jiitu ci ay jëf lu waay mën a jëf lu mu baax baax baax ku la dëggan a sellal laa ilaha illallah jiitu la aljanna jële nañ ci kenn ci mag ñu baax ñi ginnaaw ba mu nelawee ba yeewu mu ne moom day gis na ci gént laa ilaha illallah du bàyyi dara ci bàkkaar lu mu fekk ay bàkkaar ci nit lu mu def rek mu daal di koy dindi moom laa ilaha illallah day beesalaat la ràppoon la xuuroon la xomaatoon ci xolu doomu aadama bu ko waxee su fekkee sa xol dafa xomaat su fekkee da ngaa bëri bakkaar su fekkee sa xol dafa wow bëri looy wax laa ilaha illa allah soo ko waxee sa xol dina nooy say bakkaar dina dem sa yaram dina oyof waaye fexeel ba bul wax laa ilaha illa allah mbokk yi ci àlla tabaraka wa taala jële nañ ci musnad yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne sahaaba yi jaddidu imaanakum bee salaat leen seen ngëm ndeke ngëm day day day yambare ndeke ngëm day rab ndeke ngëm day maxe ndeke ngëm day funax yonent bi ne sahaaba yi bee salaat leen seen ngëm sahaaba yi ne ko yow yonent yàlla muhammad naka la ñuy bee salaatee sunu ngëm mu ne wax leen laa ilaha illa allah sahaaba yi daal di koy wax seen ngëm daa di beesaat moom laa ilaha illa allah laa yaadiluha shay'un fi lwazn lépp lu ñu jël di ko peese bu ñu jëlee laa ilaha illa tekki balance ñu jël leneen tekki beneen balance laa ilaha illa allah dina ko daaneel nuux alayhi salaam nee na doomam maa ngi lay jàngal di la xamal baatu laa ilaha illa allah bul ko bàyyi ginnaaw bul ko sàggane bul ko fawe comme ñun tey niñ koy fawee waaye sant ñeel na yàlla ba waxuñu laa ilaha illallah laa ilaha illallah la ñuy wax bu fekkoon sikkar yi ñuy sikkar guddi ci rajo yi ci mbedd yi ci place yi ci place yépp yi ñuy tuddee place su diine baatu laa ilaha illallah la kon jàmm rek mooyam waaye ndeke du loolu laa ilaha illallah du dara ab julit boo xam ne bëgg na am tiyaaba waaye xamul nu ñuy waxee baati ndeysaan du am dara day sonn rek misaal bi ñu lay ci jox rek bu ndaw jëlal numéro téléphone dajeel kenn mu jox la numéro téléphone benn chiffre boo ci yàq waa ji du la wuyu feeg juróom junni at booy woote itam du la wuyu parce que lu tax parce que woowoo ko benn waay dafa am xërëm di ko jaamu ma nga naan yaa samad yaa sanam yow sama xërëm yaa sanam yaa sanam làmmiñ bi daal di gaaw mu ne yaa samad yàlla ne ko la bayka yaa abdi xërëm la doon woo de mu juum woo yàlla samad jàngeen ko ci qul huwa allah qul huwa allahu ahad allahu samad yàlla ne ko labbayka ya abdi muusa ne yàlla kii yéeféer la woowu la dafa juum yàlla ne yaa muusa hal min samadin gayri ndax am na ko tudd samad ku dul man mu ne ko déedéet yow yaay samad mu ne man ku ma woo ma wuyu la man ku ma woo ma wuyu la man yàlla soriwu ma de dama jege ba ku ma woo ma wuyu la wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa'i bi sart isa daani na ma woo rek man na ma woo bul woo keneen xoolal tey ñun ñaata ci ñun ñooy woo keneen ku dul yàlla allahu akbar te fa mu mettee nag fa mu jafee fa mu tiisee fa yëpp rëngi-rëngee nga woo keneen ku dul yàlla la hawla wala quwata illa billah yal na yàlla leeralaat sunu xol yi allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaa'i وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة